ferenkulaay mayee nañ ko waaye du ci julli de kuy wérd te am juróom fukki at may nañ la nga ferenkulaay waaye nii ma toogee mooy toogi ni kuy julli gis nga toogin bi xam nga lu muy symboliser muhammad bopp bi mooy miim ndigg li mooy gi tànk yi nii nga ko balancé nii la wala nekk mooy daal boo deful nii doo am daal moo tax su julli du baax dina baax waaye du mat boo toogeewul nii te amoo benn ngant sa julli wàññeeku na bu doon mille cent nga am du gis ngeen position bii la ñuy toogee pour julli moo baaxit toog ci pour faw waaw jóg leen ngeen xool dañuy jàngale rek waaw waaw waaw la ñuy toogee pour julli. que waa Europe yaa ngi may bëgg boo jógee taxaw nii waaw di ngeen ko gis boo jógee taxaw lii mooy lan mooy aliful ilahi yàgg yàlla rekk la moo tax ñu taxawaay bi ñu ne la bul wéeru ci dara ndax yàlla laa taaxuzuhu sinatun wala noomun wéeruwul ci tus wéeruwul ci kenn moo tax ñu ne la boo amul ngant bul wéeru li nga wéeru yi dañ koy mesurer bu fekkee ne wéeraay bi buñ sempee bant bi nga daanu sa julli yàqu na waaye bu fekkee ne buñ sempi woon bant bi doo daanu wéeraay boobu yàqul julli bu dee amoo ngant soo amee ngantal taxaw kese na nga taxaw wéeru waaye boo gisee ñu ne danga naan taxaw ne temm temm bii mooy aliful ilaahi alladina yazkuruna allaha qiyaaman la yàlla njëkk a wax da ngay taxaw moo tax mu ne wa qu'uudan alladina yazkuruna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batilan subhanaka fa qina adaba naar moo tax rabbana innaka man tudxili naara faqad axdaytahu wa ma lizalimina min ansaar rabbana innana samicna munaadiyan yunaadi lil imaani an aaminu bi rabbikum fa aamanna rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika waaye nag wala tuxdina yawma alqiyamati ndax lan innaka la tuxlifu almi'ad yàlla ne li nga wax yëpp neex na waaye sama yoon newu ci man yàlla je m'en fiche ci sa wax ju bari ji xam nga lu mu ci teg ah lu mu ci teg fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udiu amala aamilin minkum min zakarin aw unsa yàlla ne sa kebetu ji yépp wóoruma jëfal ma gis li nga wax daal ay wax la soo bëggee wax ji ma nangu ko appliquer application laa soxla moo tax mu ne fastajaaba lahum wuyu naa leen dégg naa leen rabbuhum seen borom waaye daal inni anni man yàlla udi laa udi u amala duma sank jëfu kiy jëf moo tax jëf rek ko konte yi ci des yëpp wax ju bari yàlla amu ci soxla julli boo gisee mu wax mu ànd ak wax yàlla dafa bëgg wax ji correspondre ak jëf ji moo tax boo nee temm taxaw am nga aliful ilaahi yàgg yàlla kese la moo tax ngay jàng faatiha pour kennal yàlla mënoon nag jël beneen saar waaye faatiha mooy jiitu ci julli pour kennal yàlla boo sëggee am nga laam lutfullahi am nga ko waaw hmm? ah, alif lu ci topp laam jeex na nga siggiwaat am nga alif muy laam-laam nga sëggaat am nga xaa xaawu allah nga siggi yàlla ne la léegi nag xam nga ma ku ci des nga ne ko yonent bi muhammad mooy toogi nii boo toogee rek muhammad a ngi nii allahu muhammad mooy julli moo tax yonent bi rek a mën a indi julli kenn mën mënu ko indi moo tax moo ko jëli julli gi taxaw beeg sëgg beeg rukku beeg sigg bi yëpp allahu la fa ngay toogee di taaye nag yàlla ne la man kenn newuma fi moo tax ataxiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lil buy ni yonent bi la miim mooy bopp bi xaa mooy dën fii ba fii ba ci ndigg li xaa la lii miim la ndigg li ci boppam miim la oom yi ba ci suuf mooy dell miim xaa mooy adam dell miim daal jeex na waaw kañ mooy mooy mooy julli moo tax julli dara ëpp ko doole soo toogee di taaye li ma waxoon allahu nga junjoon junjaat nga allahu mu ngi nii boo nee boo nee nii allahu ñëw na allahu muhammad boo yëngal salaay sallam nee na bu ñuy dóor seytaane la waaye man tànn naa ba alaaji Malick daan def te alaaji Abdou Aziz sa ko wax nee na Maodo baaraam bi la naan sat bii mooy wane ne yàlla kenn la amul dend boo ko tàllalee day wane ne yàlla kenn la amul dend boo indee bii tàllal mooy gannaaw yàlla nag yonent bi la yàlla yónni moo fi nekk boo koy yëngal nag muy bor bolde bu ñuy dóor ci seytaane pour mu sori la ndax soo liqaamee seytaane day daw suñ noddee day daw bu ñuy liqaam mu dugg siwaat pour jax-jaxal la ci biir julli gi moom du la ba seytaane moom du ba kenn bu ñuy nodd nag day daw lopp mille kilomètres waaye bu ñuy liqaam rek mu ne dagaj ci biir jàkka ji commencé ci yu su fii suduuri si naan la waaye fàtte nga danga waroon a dem marché Maodo Diop ak lay xaar nga yàkkamti julli gi ndax rek koppar yu la Maodo Diop waroon a jox nga naan mbaa du ma fekk Maodo dem naa gaawal julli gi mbaa Maodo du dem waaw loolu yëpp sa xol boobu seytaane koy def ci sa xol pour julli gi man a ni tiyaaba ji mën a néew waaw dinañ ko gën a yaatal incha allah waaw dinañ ko gën a yaatal waa Europe yee ma sonal rek boobu ba tey pour ne naa ci mosaat tuuti ñu leen di nuyu sax au passage. mboolem ñi nekk ci àddina bi Europe Amérique fu mu mën a doon ñu ngi nuyu ñëpp